ginnaaw moom mi nag la mu fësal rek moo di da ko jébbal kilifa yi nga xam ne ñooy préfet yi ngir rek ñu jëmmal loole ñeel opération de désencombrement yi nga xam ne jur na daal ay jixi jaaxa jàpp ne nag dayo yi nga xam ne bokkal bokk moomeel am nañ ko ak itam yu ki yor réew mi war nañoo mën a xool lu ñu ko daal di boolantoo bu ko defee loole di njëriñu askan wi Birame Mbaye sekk xale màcc loolu ci bokk moomeel yi naka lañuy ñuy amalee seen ab liggéey waaye itam nee na euh, coow loolee nag mënoon na ñàkk ndax daal euh, dayo bi nga xam ne am nañ ko dafa bokk rek ci juróom-ñeenti yëf yi nga xam ne euh, ñoom nag ñoo ko daal di yore waaye nag du rek lu waaye neex def ndax loolee dafa am fu mu yem lim ca jàngat daañu ko teelu ci jotaayu xibaar yi. benn at ak juróom benn weer loolee nag euh, la procureur de la république sàkku ñu daal di koy tëj ñu doon liggéey ca centre tari bu daabu nga xam ne ne tuumaal na daal dafa am ay ja ay musiba yoo xam ne def nañ ko ay ñaawteef yoo xam ne daal dañ ko jëmale ci seen njiit ndir moomee nag tax na ba ñu kii leen di layal daanaka la mu fësa rek moo di kilifa googee nag amul wenn këyit woy firndeel doom yooyee ci jamono ji nga xam ne nag syndicat yi ma ngay sàkku ñu fay leen nag seen i ay payoor toll nag ci ñeenti weer mbokk yi ponk yi gën a fës boo leen taxee doo ñu faram fàcc ko jaajëfaleen bu baax a baax ci télé bi ànd beeg sa TV jëriñ ñu dénk biir réew di Jean Baptiste Tine daal dinañ ñëw ci coow bi nga xam ne judd na ñel kayit ga mu wasaare ci opération de désencombrement yi leen nga xam ne da ko jébbal préfet yi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom loolee nag amoon ci juróom-ñaari fan ci weeru mai daanaka coow li nga xam ne daanaka juddu na ca day firnde rek ne nag dayo yi nga xam ne bokk mu mel am nañ ko ak ndëgër laay ga daanaka warul tax benn yoon ba ñu waroo ak kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi dañoo war a déggoo a askan wi. bi Ousmane Sonko àddoo ci li ñu jógal commerçant yi di jaay ci marché Colobane ba tey mu jur coow ci diggante maire ba ak gouvernement bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci meeru fas Colobane dogal gi ci ministre de l'intérieur la jógee moom mi def ab circulaire ngir ñu amal li ni mel. ko yaakaar naa ne xëy na bu jëloon information bi mu war a jël ah si ni mu ko war a jëlee ak fa mu ko war a jëlee ak kam mu ko war a jëlee. kon du ñu egg ci li ñu egg dem. ministre de l' intérieur moom it indi ci ton ministre de l' intérieur du sant maire dara dafa am lu ñuy wax te pouvoir déconcentré ak pouvoir décentralisé ma mu di mbir moo xam ne nii mën na indi jiixi jaaxa ci diggante pouvoir décentralisé ak pouvoir déconcentré bu état mu di ñaari anam ci ni ñuy jiite communes yi ñaam wuute nañu waaye dañoo war matalante bu ñu sukkandikoo ci ndeyu charte réew mi. bu dee mënuñoo méngale ñaar yi waaye tamit kenn ku nekk soxla nga sa morom ngir mën a liggéey liggéey bu mucc ay loole circulaire bi nga xam ne ni moom moo indi coow li di ko firndeel ndax ministre de l'intérieur moom naam gouverneur de région yi moom la jëbbal bi lépp circulaire waaye da leen ceewoo ngir ñu waxtaan ak président de conseil départemental yi ak maire yi ngir ñu xool nan la ñuy jooyantiwaate ay jafe-jafe yi nga xam ne ni nemmeeku nañ ko ci marché yi ak yeneen place publique sañ-sañ gannaaw bi nga xam ne benn jëwriñ jébbal na ko ab mission mu amal ko te jiite personne morale de droit public yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci région yi rawatina ci établissement public yi. loolee firndeel seen sañ-sañ ngir ñu amal yi lépp opération waaye lu ci mante am du jàmmi réew mi bu ñu bëggee indi jiixi jaaxa ci diggante chef de circonscription yi ci mel ni gouverneur préfet sous préfet ak maire yi te ñoom sax sañ yi nga xam ne ni moom lañ leen jébbal wàllum aménagement du territoire bokku ca ni diggante pouvoir décentralisé yi ak déconcentré yi waxtaan ngir matalante moo ci ne waaye waruñoo féewaloo Euh, coowal désencombrement yi nga xam ne ñu ngi koy daal di gis tax ba marchand ambulant yi daal di cay mbedd futtu mi ngi gën di wëy ñu koy waxtaanee Birame Mbaye Seck di expert ci li nga xam ne rek noonu la bokk ma mel yi nag di amee seen liggéey jàpp ne daal ñoom ñe nag am nañu sax ab dayoo nag amal ci seen ab gox ay set yoo xam ne dina tax ba yoon yi nga xam ne askan wi fa la ñu war a jaar ñu fay mën a yëkkatiku waaye loolee day bokk ci juróom-ñeent yëf yi xam ne am nañu ca opération de déguerpissement ngir rek xàll mbedd yi bokk na si li nga xam ne état moo ko jagleel ñi jiite gox yak goxaan yi Birame Mbaye Seck xam-xamam màcc ci wàllu décentralisation di dikkaat rek si bile sañ-sañ ñu may maire yi. ci domaine bi ñuy wax nag ci wàllu urbanisme ak aménagement ak habitat euh, domaine boobu maire am na sañ-sañ ci liñ ko dénk muy joxe autorisation de construire muy def ay lotissement muy def ay euh, euh, ay. ay euh, ay acte d'urbanisme am na sañ-sañu euh, mbedd mi nga xamante ni moom lañ ko dénk mu di ko saytu sañ-sañ la naam waaye nag am na fu mu yam bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Birame Mbaye Seck muy tudd mbiruma kaaraange gi nga xam ne dañ koy soxla ci opération de des désencombrement yi bu dee da ngay def opération bi da nga soxla kaaraange da nga soxla kon police walla gendarmerie ñu ànd ci ak yow pour sécuriser opération bi sécuriser nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom nga fay fekk parce que lii bañ mooy trouble li ñuy bañ mooy jëya wala loo xamante ni kenn seen souhaité wu loolu maire donc du ko mën il faut mu ànd ci ak les préfets il faut mu ànd ci ak le gouverneur ak les ministères de l'intérieur les forces de sécurité. ci gis-gisu Birame Mbaye Seck coow lii ñu nemmeeku ci mbirum opération déguerpissement yi jaru ko. Euh, dama jàpp ne coow bi coowal politique bi moo ci ëpp waaye désencombrement yàgg na am. dafa nekk nag opération moom ni dafa comme day laal ay koom lu ci ëpp moo waral mu am coow. si ay kàddoom nag préfet yi ak maire yi ñoom ñi jiite gox ya goxaan yi lépp li ñuy sumb dañ see war a ànd nekk benn. addu jëmale ci diwaanu Thiès ay ndaw yi nga xam ne rek ñoo féetewoo ci kuréel gu ñu duppee plateau à famille ca ca cité Lamy ñoom nag daal nañuy bootu amal ay pexe yoo xam ne daal bokk na ci bolonto soppi seen xar kanamu gox bokk na ci itam peinture yoo xam ne daal kenn rek lay doon ñu daal di koy def ci seeni i buntu makkaan bu ko defee rek ñoom ñëpp yem ca daal di nuróole waaye itam loolee lu ko wundu bokk na ci rek lépp loo xam ne dafa faral di indi jiixi jaaxa mën dañ bi la initiative nag lu ko tax a jóg mooy jox xar kanam bu bees ci seeni quartier ba tax na ñu peinture buntu kër yi yëpp daanaka benn couleur. dañoo toog gis yeneen koñ yu ko def fii ci biir quartier bi donc ñu toog fekk suñu frères yi fi ñuy naanee ataaya ma déplacé ñëw ne leen kaay la ñu xool suñu koñ ñu koy defaree comme yeneen koñ yi. yàlla def na nag ñu déggoo mànkoo fi amul ku mag ku ndaw bi ma waxee ñu ne ma grand loolu mën na nekk. ñu xëy suba lendemain dugg ci kër yi tàggu suñu papa yi ak suñu yaay ñëpp ne waaw. projet bi nag ñoom ñoo ko financer seen bopp benn loxo autorité wala politicien dugg si gannaaw lekket bu ñu jël taxaw ci tali bi lu waaye am sandi. projet bi kenn kenn kenn kenn financé wu ko projet bi financement bi cëpp mooy leget gi ma doon yor taxaw ci kaw télé bi leget googu daanaka suñu amoon tey luñ koy récompenser dañ ko koy defal moom. su doon nit la dañ koy wutal fii luñ ko sargalee ñëpp seetaan ko ñu fi jaar di ñu may seeni i dix mille seen i trente mille seen vingt mille ndax seen xol sedd. ci turu quartier bi yëpp notable bi moo ngi rafetlu li ni mel teg ci di ñaanal ñoom ñi tax bi la projet taxaw te mu doon lu law ba faw appréciation bu positive waaw parce que xale yi jàmbaar lañu jàmbaar lañu bon non seulement dugal na ci seen doole mais seen temps yëpp jël nañ ko. je crois que lii ñu ngi ko démarré woon vers le 27 vers le 7 27 mai ah. 27 mai alors le 27 mai ba léegi ñu réalisé lu mel nii te affaire bi booy seet dafa continuer ba école citadelle bi avec d' autres jeunes qui sont là-bas de alors vraiment c'est quelque chose boo xam ne bi te état fekku leen ci mairie fekku leen ci ñoom ñi nekk ci cité Lamy ñoom nee nañu rek lu leen tax a jóg mooy gën a ñoŋal seen dëkkuwaay ba tax na nawet bi jub si sax dinañu def ay opération pré hivernale tamit dinañu installer ay caméras de surveillance ngir xeex insécurité ci biir quartier bi addu jëmale ci wàllum politique ak député bi di Abdou Bara Dolly moom mi nag ma ngay ñaax ay naataangoom ca pencum ndaw réew ma ñu fexe daal nu ñu defee ba dellusiwaat ilimaanu jorin bi ci kayit ya koy tënk bu ko defee mu mën a dellusi def nag li nga xam ne moom déclaration de politique générale bi nga xam ne euh, jur na ab euh, coow jàpp na ne loolee daal bu ñu ca tonkoo euh, coow bi nga xam ne dudd na ca mën nañ ko woon ginnaaw. Amadou Ba bi mu koy def boobu loi bi ñëw mais dafa sukkandikoon ci constitution bi lan moo tax ñee defaloon ñetti yi nga xam moom la con euh, règlement intérieur assemblée nationale wax te kenn mësu koo dégg ñu wax ko kii nga xamante ne règlement intérieur la waxu ko muy Ousmane Sonko mu wax ci loo xamante ne xëy na moom la engagé ci ay faru Facebook wala Twitter ensemble sax bëgg koo jël moomale ko seen bopp ba dàq ministre finance ni duñ def débat orientation bi loolu teguñu ko si yoon ñun ñoo bokk réew mi ensemble sax dafa war di dox ci ay loi ak ay règlement asam dafa war a dox ci li nga xam mooy sañ-sañam mais warul dox ci loo xamante ni tamit dafay weddi boppam wala mu manqué loo xamante ni tey tax ko ñu yàpp ko si loolu moo tax ma woo député yëpp ñu maase incha allah à partir suba ngir ñu mën a def li nga xam mooy Euh, ouverture euh, section extraordinaire demande naa ko parce que loolu ñu ko mën a def mooy waa benn bokk ya parce que pour nga am ko il faut nga am su 60 député ñi nga xamante ñoo ko am mooy waa benn bokk ñun amuñu ko kon ñoom rek ñoo mën a sukkandiku pour def demande section e-, e-, extraordinaire wala président la république laaj ko assemblée ngir ñu def ko suñ ko defee nag obligation la ci ñu def li nga xam mooy procédure urgence càmbar ko nu mu gën a gaawee ngir ñaar loi yooyu a jàll ñu jàll si leneen mel ni député yu PDS taxaw nañ tam ngir loolee nag antu ndax daal dugal nañu pap luwa Nafissatou Diallo Ibrahima Diop ak Serigne Abo Mbacké ñoom nag daanaka ñoo xalaat loolee bu dugal loi organique bi nag teg ko ci tableau njiital pencum ndaw vraiment di Amadou Mame Diop la ñu bëgg rek moo di ñu indiwaat nag lay firndeel li nga xam ne moo di ñëw luñ njëkk gi mën rek del def nag li nga xam ne mu déclaration de politique générale am ci rek app wa nga xam ne lañ ko santaane loolee nag daanaka Euh, day fexe rek ba ñu indiwaat mbir ba gannaaw ba ñu ko teggee woon ci atum 2019 daanaka bu koy këyit nag xaatimu Nafissatou jàlloo ak Amadou Mame Diop la ñu daal di euh, nemmeeku. tey ñetti fan ci weeru sulet atum 2024 ni ki daaw euh, daanaka ñi turée ma woon di euh, Macky Sall ci la jëloon dogal bañ a rek bokk ci jongootu ñi turée wi ñu dët ma loon euh, ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février laataa ñu koy toxal mu nekk nag mbir woo xam ne laataa mu jël ndogal googee bëri nañu ko ca ŋàññi ñëpp daal doon ko tuumaal ne dafa bëgga a laaj ñetteelug mandat ci réew mi laataa loolu na itam coow lu bare bare juddoon na ca waay nag ba mu ca noppee yeneen i xew daal di cay toftalu ndax daal jongante yi mujjoon nañu ko dàq nettali gi ak Pape Malick Thiam. sama dogal bi ma xalaatee ba noppi mooy du ma nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024. 2024. discours bi daanaka mu dakkal fu président Macky Sall moom mu defoon ko ci 3 juillet bébé su doon mandargaal Macky Sall lu mu wax du def troisième mandat ñu doon ko jiiñ di dafa bëgg a toggaat ci nguur gi loolu nag lu ñu jàpp la ndaxte lu njëkk la ci histoire politique Sénégal amul benn njiitu réew boo xamante ni moo nekkoon ci nguur gi bàyyi ñu ko doon jiiñ mbirum troisième mandat lu ñu jàpp la tamit ndaxte lu njëkk la président de la république bàyyi nguur gi organiser boppam ay élection datu 3 juillet bokk ci histoire jur leneen loo xamante ni dafa tiis ci Sénégal reporté élection yi moo ci topp bi nga xamante ni juróom-ñaari weer lañ ci teg ñetti nit ñàkk ci seen bakkan mu jur ay crise institutionnelle instabilité am ci dëkk bi ay jàmmarloo yu métti métti ci état dogal yi nga xamante ni moom la jël li ci topp moom mooy ndax dinañ def élection yi waaw wala déet élection yi nag mu wujj ama conseil constitutionnel dogal ko mu nekk loo xamante ni tamit ci histoire politique Sénégal lay am datub 3 juillet 2024 boobu ba léegi mu nekk bennaat wax jàpp ko bu président Macky Sall def beneen bi mu jàppat ko ndaxte lu ñu xaatim la ci Sénégal nu muy doxee ak tamit lan moo tax loolu di firndeel li nga xamante ni moo ubbi élection présidentielle yu 2024 tax ba nga xamante ni président Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko di jiite tey jii jërëjëf euh, Pape Malick Thiam naa ne yegg si nañ ci jàngatoog bés bi moom itam taxaw ci wàllum politique ak rupture bi nga xam ne nguur gu yees ki woote nañ ko euh, loolee wute nag ak li nga xam ne moo fi amoon ay at ngi nii waaye nag euh, Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne mooy njiitu réew mi bu bëggee rek loole en tout faaw nag mu am pexe yu mu lal waaye itam bañ a gaaw rek di jëli ndogal faaw rek mu xool bu baax a baax pexe yi nga xam ne noonu la ko wax fas ne jiitee nag askan wi bu ko defee daal lépp loo xam ne jël na ko ci ay ndogal mën a nekk njëriñu askan wi ànd ci ak mu marxisé rupture politique tànneef la loo xam ne kat wala sax loo xam ne ab orientation la maanaam foo xam ne kat fa la ñuy dëgmal waaye tamit amut loo xam ne daal mën nañ ko see sax gën ci sore ba tax na li nga xam ne daal mooy euh, daanaka wàllum coppite ci li nga xam ne kat mooy doxalin loolee daal dafa ñeer ak groupe boo xam ne dañuy gën a dëgëral am volonté seenu bëgg-bëgg daal di dëgmal foo xam kat ñoom ñëpp ñoo fay bokk gis-gis. boo ko gis-gis boobee nag tax na daal ñu gën a mën a xool ne gis-gisi état bi kat nii la ak la nga xam ne mooy banqaas yi gëm ne kat wàllum rupture na fa nekk existe boo xam ne fa saasa war na baax loole kat mbiri génti la ndax njiiti réew mi Bassirou Diomaye Faye ak nguuram gi war na noo moytu am dégg goo xam ne ci wàllum rupture ne kat loolee dafa war a bett askan wi déedéet rupture moom nekkul rek ci wàllum politique wàllu ci administration da nga xam ne kay lii njëkk ak la nga xam ne mooy ñaareelu alternance bi amoon ca 2000 ak 2012 gis nañ ne war nañ cee jàngal lu bëri bëri ñaari régime yi nga xam ne kat ñoo fi nekk ñoom sax dañoo lajj la ñu def rek mooy soppi mbir mi te loolee war demul noonu kon nag mal gouvernance ci boppam mu indi jafe-jafe ba tax na askan wi kenn wóolootu leen ñu gisakat wàllum rupture am na ci loo xam ne ci nguur gi tamit la war a tàmbale waaye tam ñu koy def nànk-nànk di koy toqantal waaye mu nekk gis-gis boo xam ne day gën yaatu lool kon nag li nga xam ne mooy ñetti weeru njëkk yi ci exercice pouvoir bi ñu bëri ñu ubbi seen gët wala ñoo xam ne kat ñoom dañuy daal di euh, tàllal seen nopp mel ni kat ku ciy déglu ak a xaar nekkul ne kat da nga war a jël liggéeykat yi wala góor ñeeg jigéen ji daal di jaxase déedéet majorité politique bi nag moom dafa war a gën a moytu di daal dugg ci ndugg sarax googee waaye tamit wàllum coppite ci personnel politique nekkul loo xam ne kat day tax daal mbir yi gën a jag waaye gouvernance de bu ñu koy wax day fekk ne kat mu yàlla ci ab gis-gis boo xam ne day daal di wéy lépp rek mu am cem jote waaye la tax mu baax mooy lépp doxante loxo waaye tamit indi ay résultats yoo xam ne day tax rek boo ko nattee dana jur njariñ waaye nekkul ne loo xam ne kat ak luwaala la déedéet wala sax loo xam ne dañ koy yaakaar ne buñ ko deful rekk dara du baax addu ci weneen ponk bu nga xam ne waxu leen leen ko laata ñuy sóobu ci yaatal gi jàppale ni niki ji nag la procès bi dox ci diggante njiital centre Talibou Dabo ak juróom ci agent yoo xam ne foofu lañ doon liggéeyee euh, procureur wi sàkku ñu tëj leen daal benn atu kaso yu toftal juróom benn weer bu ñu sukkandikoo ci yi nga xam ne ñooy layal nag ñu ne caabi féetee ginnaaw jàppale ni daal njiit li kàddu yooyee mu yëkkati tegu ko fenn amul lenn lu koy firndeel waaye tam moom euh, la mu wara a def daal defu ko xoqatal gi mu nekkee syndicat yi nga xam ne ni daanaka ñu ngi daw ci seeni payoor toll ci ñeenti weer loolee war a wax. gannaaw bu directeuru centre bi daal di porter plainte contre X lañ daal di teg loxo juróom ci agent yuy liggéey ci centre Talibou Dabo tey nag ñu doon jannoo juge bi. ki plainte moom xam na li tax mu plainte nee na li tax mu plainte ay faits yu am 14 juin la témoins yi sax nee nañ ñoom nekkuñu fi woon sax le 14 juin kenn la fi nekkoon ne nan la mënee ñëw di seede loo xam ne le 14 juin la am. donc ça me paraît très ay agent yu mer ba futtu ñoo daal di song hôpital bi yàq fa ay bagages yu bëree bëri suñ sukkandikoo ci directeur bi agent yi nga xamante ne ni dañoo toog lu tolloog ñeenti weer kenn fay reen seen salaire buñ sukkandikoo ci seen avocat directeuru centre bi amul benn preuve ci lu muy wax bëgg-bëggam mooy fexe rek ba noppiloo ay syndicaliste ñii teewuñu fii ndax ay acte de vandalisme yu am wala yu amul dañoo teew fii parce que dañoo ne ñoom ci seen bopp ñoo def acte de vandalisme amul kenn koo xam ne indi na liy firndeel ne ak de vandalisme yu am na yoo xam ne ñoom ñoo ko def directeur bi si boppam nekku fi woon ñaari témoins yëpp kenn si ñoom nekku fi yoon bi ñu leen entendre au commissariat nee na ñoom gisuñu dégguñu fekkewuñu dañoo ñëw fekk ay mbalit yu tuuru ay bunt yu damm ay serrure yu damm centre Talibou Dabo kay ñëpp xam nañ ne <laughs> yàgg naa jagat yi nag te ñun defuñu def lu wuñu fekkewuñ fa ñuy defee ñoom ñu ne nag def am na nañu indi kan moo def ak ñan ñoo def ak ay preuve yu ñu leen di toppee acte de vandalisme ak menace procureur bi moom dafa jàpp ni dañ leen war a tëj benn at ak juróom benn weer yi nga xamante ni nii dañ ko war a tëdd. teguwul fenn parce que yaa ngi laaj 10 millions nee nga dañoo yàq sa der yow yaa plainte yow mi plainte kay yaa yàq der bu fekkee ne dafa gis ne dañoo yàq deram na dem plainte mooy loolu mooy diffamation na dem plent pour diffamation mais plentam bi diffamation bokku ci. lu tolloog 118 agents yuy liggéeye si centre Talibou daabo juróom lañ ci daal di identifier jàpp ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw yooyu la yàqu-yàqu fu mu nekk nii nag daal di nañ dàkkandi mbir yi ba le 10 juillet ngir rek euh, ñu daal di génne délibéré bi. addu ci armée de l'air mi nga xam ne ni ki tey ji ci àllarba doon rek daf nag màggal fête patronale am ci base aérienne capitaine Mame Andala Paul bu Wakam jàppale ne nag atum ren jile mbir ma ñu ko teg ci coopération militaire waaye itam nekk ponk wu am solo ngir suqali ko mu nekk nag ab ci njiitu chef détat bu armée de l'air daanaka teewoon fa def bilan nga xam ne liggéey nañ ko ba noppi ànd ci Jibril Diallo. buy mandargal bés bi ñuy créer armée de l'air bu Sénégal ci atub 1961. l'armée de l'air nag bokk na ci force de défense et de sécurité mi nga xam ne ñu ngi def ab liggéey gu am solo ci kaaraange réew mi waaye itam di sàmm sunu ay ressources naturelles. moo ngi amal liggéey bu am solo ci lépp lu jëm ci action yi nga xamante ni moom la nguur gi di teg ngir jëmale ko ci wàllum géej loolee nag ñu daal cee ànd ak ay force de défense yi nga xamante ne ni seen activité yëpp ñu ngi koy amal ci lépp luy xeex pêche illicite ci wàllum géej gi bokk na ci lu ñu ko yombal di technologie yi nga xamante ni daal di nañ ko am ngir rek ñu mën a xeex lépp luy trafic. lu mooy nag mission booboo nga xam ne mooy mission bu njëkk mu ngi dugal loxo itam ci concept bi ñuy dippee armée nation mi nga xam ne am na solo lool diggante arme bi ak askan wi mu nekk sax loo xam ne moo waral jàmm gi nga xam ne Sénégal moom lay tiitaroo ci àdduna